des projets euh, question bu njëkk bi mooy euh, ONG bi kañ lañ ko créé comme ni ma ko waxee léegi rek créé nañ ko 1994 mu doon association nag la coopération islamique bi mu demee ba 2015 ci la nekk ONG Al te ni moo comme ni ma ko waxee bañ koy commencé it benn jàkka lañ doon tabax benn jàkka lañ doon tabax mooy jàkk ci nekk cité Djily mbay Euh, suñ mag suñ Moustapha Sall daa fa daan fa jiite moo ko euh, Abdoul Abdoulaye Touré mi léegi mu dem ba nekk ci deux cent quarante cinq juma kon loolu mooy mooy euh, at mi ñu ko def léegi li wax ni jirim yi ñaata jirim lañ amagul ak centre yi ñu am am nañ juróomi cent juróomi centre yoo xam ne yu pare la yoo xam ni ay orphelin yi ngi fa benn bi mi ngi dakaar benn bi mi ngi jëm ñaajo benn bi mi ngi puut benn bi mi ngi ngéwul benn bi mi ngi Louga am na benn bu ñuy waaj ubbi bees bu nekk euh, jélleerlu ngéwul sax ñaar ñoo fa nekk te li nga xam si am nañ ko ci ay orphelin tamit orphelin yu ñu interné amagum nañ parce que trois cent trois cent trois cent vingt cinq orphelin yoo xam ni euh, ñu ngi leen yore jël leen en charge yëpp ñuy ñuy ñuy ñu ñu leen jël en charge yëpp ñuy jàng français di jàng alquran jori euh, seen dund lépp daal loolu mooy kii bi nii question bi waaw mu ni ndax alxayriya dafa yem ci imaam yi kese ak euh, orphelin yi wala alxayriya euh, alxayriya am nañ ci pànc yëpp alxayriya ONG la boo xam ni lépp luy social ñu ngi ciy liggéey ñu ngi liggéey ci euh, action sociale tey jii boo demee ministère ministère de la santé action sociale euh, ñi ngi ñi ngi lënkaloo ak ñoom nga xam ne si tey ci région yi région yi Sénégal yëpp quatorze régions yi régions yi ak quelques départements seen représentant action sociale mooy représenta ONG Al Khayriya ci convention boo xam ne dañu ko def ak ñoom kon ñooñu lépp loo xam ni Euh, euh, euh, su jëm social la lu jëm ci hôpitaux yi wala boog ndimbal yi nga xam si dañ koy jox néew ji doole yi foofu dañ ko fay def ci ñoom lañ koy jaarale ONG ya mi ngi dem ci teen yi tabax nañ léegi tabax jege na ay 600 teen yoo xam ni tabax nañ ko ci Sénégal ak sous région bi ONG ya dina dem ci jàkka yi comme ni ñu ko waxee léegi tabax nañ 245 mosquées yoo xam ni pare na 243 yu pare ak quelques yoo xam ni xëy na incha allah balaa yàgg dana pare ñu jox ko seeni borom ONG Al Khayriya ba tey dina defar ay boulangerie parce que fi ñu toll nii am nañ lu mat juróom-ñett wala juróom-ñeenti boulangerie yoo xam ni ak ONG Al yi ñoo ko defar ba pare jox ko ay jullit ñoo xam ni ñu bëgg a liggéey lañ jox leen ko am si dafa am rek benn charge bu ñu teg leen fin du mois bu ne na nga indi li ñu occupé leen ko ba mat. ONG Alxayriya mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi euh, mi ngi gunge tamit étudiants yu bari yoo xam ni ñu ci bitim réew fu mel ne Soudan ak Égypte bari na ñoo xam ni euh, ñu ngi leen fay jàppale te Dubai Émirats arabes bari na étudiants yoo xam ni ONG Alxayriya ñoo leen wutal bourse ña ngay jàng foofu kon ONG Alxayriya yemalewul foofu am ONG Alxayriya dugg nañ ci njàngale parce que franco arabe tey jii euh, Dakar am nañ ci franco arabe boo xam ni. Euh, mi ngi ne Castor kooku euh, daaw jéeg bi ñu bi ñu bi ñu année bi ñu ubbee deuxième année bi ci dix meilleures écoles yi nekk ndakaar ci lañ leen boole ci Lorrain bu ñu doon def fële ci Sorano euh, année bi passé année bi passé ñu doon def entrée en xale yi entrée en ak ak ak certificat gis nañu xale yëpp am nañu réussite cent pour cent am nañu franco arabe fii ci Diamniadio am nañu franco arabe fële ca Kédougou am nañ franco arabe fële ca Tamba am nañ franco arabe ca Ngéwul am nañ franco arabe it fële ca Louga ONG ay xayri yi yemul foofu tamit mi ngi nekk di jàngale euh, li ñuy tuddee maxul ummiya mooy mooy jàngal mag ñi parce que xam nañ ñu xam nañ ni euh, euh, mag ñi rawatina jigéen ñi magu jigéen ñi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy yore kër yi ñoom bu fekkee ni seen bu fekkee ni seen yar dox na ak seen lislaam dox na rek société bi dina mën dox loolu moo tax alxay ONG alxayriya dabaatar defar ay ay école yoo xam ni ay mag ñoo fay jànge tey jii fii ci Mamel rek li fi jànge jege nañ 600 jigéen yoo xam ni ay responsable lañ ay ñu bari fenn fenn ñu jóge jàng si am nañ ko ci euh, Tamba am na fële ca Kédougou am na tamit ca Louga am na ca Ngéwul te am na tamit ca ba te ñu ngi koy préparé tamit yeneen place yoo xam ne yu bare bare ONG Al ba tey ci yi ñuy def yëngatu ñu ngi poste ay poste de santé am na ay poste de santé yoo xam ne ñu ngi ko tabax équipé ko lëkkaloo ji ak def convention ak waa ministère la santé nga xam ne si su boobaa euh, ñoom ñoo ñuy jox euh, ñoo ñuy jox euh, médecin yi yi fay liggéeyee ñun nag ñun ñooy résidus bu ko defee faj maag lépp rek ñu def ko ca nam gëna a yombe ak benn mu ne ONG Al nan la ñu def euh, nan la ñu def ba ba dajale zakat mel ni àdduna bi li am solo rek mooy booy liggéey ngir yàlla xam nga euh, euh, li gën a fort sa xam ne àjjana am na lu ko gën a neex yàlla moo ni wa ridwaanu min allahi akbar yàlla ne àjjana li muy neex neex sama sama ngërëm moo gën a neex moo gën a neex àjjana ngërëma yàlla mooy gis yàlla nit dana dugg àjjana te te amul ngërëmal yàlla nga xam si xëy na dañ koo sawe yóbbu ko wala ñu jéppi ko yóbbu ko rek yàlla ni la wa ridwaan min allahi akbar kon mooy lépp looy def rek su jublu ci rek am yàlla ci lool nag la def la ñuy def ñun di ko def lépp rek wut ci ngërëmal yàlla moo tax transparent ba mu ñuy liggéey am ñu la gis bu ñu wootee dara dañoo bëgg def lii dañoo bëgg tabax jàkka rek am na ñoo xam ne am nañ kóolute ni ñii kat bu ma leen ko joxee jàkka ji nañ dem ci zakat bi noonu la biñ ko commencé am ñoo xam ne ñëw nañ ni kat wóor na ma ne alxayr yéen ni ñu liggéey mu leer ma sama asaka bii kat su ma leen ko joxee dana àgg fa mu a àgg loolu moo waral bi ñu lancé lu mel nii ci diir bu gàtt affaire bi xaalis bi dem ba toll nii dem ba toll 32 millions loolu vraiment loolu loo xam ni Euh, euh, dañ koy sante yàlla euh, di ñaan yàlla ñu bañ ci gis suñu bopp mu nombre bi sax bëgguñu woon tudd mais dañ ko bëgg a def pour ñaax nit ñi ñaax sénégalais ñu génne asaka parce que asaka du alal joo moom alal ja boo xam ni dafa yàlla moo ko dugal sa biir alal dafa la génnee ko joxe waat ko jox ko diw jox diw jox diw ñooñu danga war a génne asaka ba xaalis ba boo ko téye sa bopp boo ko téye sa sa xaalis boole ko ci yaa ngi mooy yàlla yàlla mi ngi lay rëbbu te euh, euh, euh, bu génnul fii dina génn ci naneen te nan te buy génnee naneen mën naa yóbbaale leneen kon nag asaka nañ koy génne bu baax loolu ñii lañ ko jaarale te di ñaan yàlla ne bu déwénee wala fii ak ba déwét asaka ya ñuy dajale ñu dem ba mat ay deux cent ba trois cent millions ñu yaatal ko ba nga xam ne journaliste yi sax mën nañ leen jox asaka incha allah Ah, ah, waaw léegi mu des euh, ban bi waqf bi waaw waqf xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi dafa jóge màkka dañ ko dafa dafa dafa newoon màkka yàlla subhanahu wa taala wax ko ni ko na génn màkka dem parce que nañ ko xatale metti na foofu am na ay jullit ñu fa nekk yonent bi sallallahu woo xaritam bi abu Aboubacar Sadiq ànd ak moom wax ñëpp nañ ko fekki ñëpp dem fekki yonent bi ñam yoo xam ba ñuy dem seen saak la ñuy ba am ñoo xam si yóbbaale wu sax si yére bàyyi nañ fa seen tool ya bàyyi nañ fa seen kër ya bàyyi nañ fa seen biti yi mais bu ñu ñëwee ba Médine fu ñu war a dunde lu ñu war a lekk ci noonu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam si wa maa yantiqu ani hawa lu mu def rek lu wax yàlla ko wax yu la génne benn xalaat lii nit kat bu génnee àdduna léppam dagg na ba mu des ñett mu boole ci nag la ñu amal solo mooy sadaqa jaariya mooy sarax nga def jël dara euh, def ko waqf waqf mooy lan mooy loo xam ni dañuy téye dañuy téye cosaan li la cay génn ñu di ko joxe ba mu defee lu mel noonu ñu amoon tool koo xam ne amoon na un un hectare mu ni man kat naa jël genn wàll gi li ci des jox naa ko saxaaba naa nga mu jël ko sama kër kat ñeenti néeg yi fi woon benn néeg bi mën naa jox naa ko nangam sama bitig bi kat nangam la woon téye bi joxe naa lii loolu la yonent bi doon def bi ko yonent bi de defee mu dem ba saxaaba yi di ko def jamono mu xaw a daanu tuuti dem ba saxaba islaam yi feeñaat bi saxaba islaam yi feeñaat réew araab yi tamit dugg ci tey jii boo demee Saudiya Makka tabax ba fa gën a rëy muy tabax montre bi nga xam si bu ñeenteel sax moom la ñu génne tere am si lu mat juróom-ñeenti hôtel yoo xam si benn hôtel ba ci gën a ndaw moo ëpp méridien moo ëpp lu muy génnee méridien loolu kaka def wax fa la ko defar kenn du ko dondu kenn du ko donn la cay génne am na la ñaan lii sama génn lii nangam nangami famille yëm ñii kat ma nga jëm fee lii ma nga jëm fee lii ma nga jëm fee su boobaa loolu moo dund société bi nga dem Dubai comme Dubai léegi ñëpp gën a miin Dubai immeuble yi ngay gis fii da ngay gis ko am juróomi immeuble ni man benn immeuble bi laal doy na ma maag sama njaboot ñeent yi def naa ko wax waqf dem jox ko waa ministère laa wax fu ñooñu ni que li ciy génn kat mën nañ ciy fay imaam yi nangam mën naa cee fay nangam bi famille mën nañ cee loolu mooy dem ba nekk wax fu ñu nit biñu gisee lu mel noonu te dund nañ ci monde arabe donte suñu mag ñi suñu mag ñi daanañ def waqf comme ni ko euh, suñu mag ñi waxee la suñu Abbas école ba mu tabaxee ba pare fu la ko def amul fay sëñ Mourtala ñëpp gis kaaru sëñ Mourtala yi kaaru wax fa la daan def dem na nag ba comme ni ko sëñ Xaadim waxee fi keroog wax biñ bind ci kaar yi dafa mel dafa mujj ku jënd kaar sax bind ci wax fa sax xamuñu luy wax fa jamono yooyu léegi nag ñun biñ génnee gis tamit comme li ma wax rek mooy euh, jullit dëgg ak évolution ak lu baax jullit moo ko moom fu mu ko fekk na ko jël la ñu gis timit réewu naar yi Dubaï noo ñu gis ñu avancé noonu la am ñoo xam ñi ngi leen di fay ñi ngi am salaire Abu Dhabi boo demee am ñoo xam ñi ngi am salaire bi fi Cheikh Zayed nekkee dafa def ay immeuble yu baree bare la jay génne mu ni mooy salaire dëkk sàngam comme muy salaire waa cees ñi liggéeyul ñëpp li mooy seen salaire léegi nag loolu Cheikh Zayed jóge na fi ba léegi kenn doon kenn du ko doon Dubaï immeuble ba kenn du fa doon ñu ne ñun pourquoi pas ñun mun ñu def lu mel nii biñ préparé def lu mel nii fekk amoon nañ ay boulangerie amoon nañ ay quelque ñu jaay yëpp wax suñuy mbokk suñuy xarit kenn ku ci ne def ci dara mu ñuy dem liggéey bi ñuy dem di ko def di ko def am tabax bu ndaw am ko fi euh, euh, Sacré-Cœur léegi bi ñu demee ba nga xam si nag ñu joxe ci affaire wax bari na ci lañ jënd fi terrain bii nga xam si président Mamadou Dia moo fi dëkkoon ñu jël ko raser ko commencé liggéey tabax bi mu dem ba nga xam si li ci dugg ci liggéey bi dégg deux milliards yi teg na banque amu ci un franc bu ñu ko ci masaleb te kenn taxaw ni maa ko tabax ñi ci def bari na bi mu paree ba àggal tamit jël nañ ko li nga xam si moom la lu waa wax dem nañ ci notaire yi constitué nañ wax bi wax nañ wax bénéficiaire ñan la ñii ñoo ko jël ñii ñoo koy jël ñii ñoo ko am par bu boobaa su fin du mois bénéficiaire yi ñu bindal chèque chaque fin du mois ñu yóbbu ko fañ ko war yóbbu muy wax loo xam ni lislaam moo ko fi indi pour xeex ndóol loolu ndax kenn ku ci ne ñu ngi ñaax jullit ñi ña war na julli waa Sénégal kenn ku ne jéem a def waqf waqf nag du ni immeuble la waqf du ni euh, mën nga am sax sa kër jël benn néeg nga def ko waqf nit kii kat dama koo def pour julli ni ko amul fu mu dëkk dëkk fa mën nga am sa bitik nangam kat lii bus bu nekk lii marchandise bi waqf la sama waa kër duñ ko doon lu ci génn ñu koy joxe loolu mooy loolu mooy waqf yaakaar naa ni loolu mooy li gën a li gën a euh, leer ci euh, question yi su ma juumul daal